sàppante daal di doxoon ci diggante daaira Muxaddamatul Xidma ak lenn ci mbooloo moo xam ne kat mbooloo mu takkula ñëwoon fii ci jumaay Touba jile tey jii ci aljuma ji fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février atum 2021 ji ñu nekk ci bi 16h tegale ay simili ñoom kat bi ñu ñëwee waa daaira Muxaddamatul Xidma daal di leen di laaj luy seeni tànk ñu ne dañuy def si tawaaful ifaadati loolu kat waa daaira Muxaddamatul Xidma jàpp na jëppoowul ak lislaam ndax jumaay Tuubaa jile nekkul kaaba bañ fi def tawaaful ifaada ñoom it nag ñu jàpp ne dañoo war a wéyal seen bëgg-bëgg boobilee ay réeroo daal di dox seen diggante bam jotoon a jur ab jàppante ba police moo daal di def intervention ba daal di teg loxo juróom ci ay nit ci mbooloo moom nga xam ne kat ñëwoon nañ ci jumaay Tuubaa jilee mbooloo mi lekat bi ñuy ñëw takk woon nañu lool sol ay yére yu weex tàll ginnaaw bi kat waa daaira muxaddamatul xidma daal dina ñuy amal janoo ak taskatu xabaar yi maxtaar kan mi yor seen kàddu dal day dellu si waat ci mbir mi lan moo ko sabab. li xew fii kat li fii kat euh, xañ na lu bees la tey jii mu si gise ndax ñooñu ci ay boori 4 lan jot benn xabaar bu ne am na mbooloom jóge ci boori garage Dakar jëm si jumaay Touba mais nag dañuy def si ab tawaaf ñu daal di ñëw di leen xaar ban agsi 28 ba agsi Sëñ Tuubaa gi kilifa gi Sëñ Fàllu daay toog ak taxaw ak seen kilifa ñoom nuyoo ak ñoom sàmmte ak ñoom dalal leen laaj leen lu seen tànk ñu ne ñoom dañoo ñëw ngir def si tawaaful ifaadati wër jumaa ji juróom-ñaari yoon dem ziar suñu faa ne leen tawaaf moom xamuñu ko ci jumaa ji ndax jumaa ji du kaaba ta borom wutiwul lolu kon te ngeena delu dellu ndigal bi ndax bu joxe ndigal li wax len fu ngeen jaar danañ ci am ndigal mën na dal ngeen def seen bëgg-bëgg waye li ngeen waxee ni moom mun nangu ci ndax du place bu ni tawafé ndax tawaaf ifaada mun ko ñëpp moom sol solu weex tawaaf moom du firiwut ne yaa ngi Tuubaa kon ndax Tuubaa moom loolu ziyaaran xam waaye tawaaf moom màkk la la wére ndax màkk la xewe ndax jaamu yàlla balaa wér da kaa bokk barab ba mu laaj da nga defe defee tawaaf moom Tuubaa moom xamuñu ko ñu xam mooy ziyaar nañ xam jàkk ji julli julli génn ziyaar jàng alxuraan jàng xam-xam baa nga toog di jël sa kurus lan fi xam waaye bees moom xamuñu ko te njëlbeen gi sax kilifa gi d'accord nañ ñun waaye xam nga mbooloo mi tamit dañ koy lay fipp ñu forcé wu ñu def ñu fi war jaar mooy alerte waa police wax li xew ne leen ñu leen teewe ko daal nag def suñu liggéey ndax dañoo dénk lu ñëpp bokk muy jumaa ji ñu jël suñuy xam-xam suñu jot suñu doole taxaw ci kanam daal nag ñun li ñu digal moom duñ bàyyi kenn di ko xët ñu xëccoog ñoom xëccoog ñoom def suñu pexe ba téye kilifa gi ak ñeent nit police ñëw jël la leen ñu des ñoo ci biir ñu yóbbu. waaw xëccoo am na xam nga ñun dañoo am na lu ñu mooy wootal ci xikma dana leen woo dana leen woo ci waxtaan leen njëkk a woo laante biir ñu jëm ñoo waar ndax xam nga bu nee ñoom dañu tawaaf kese mën naa firi ziar kese. waaye tawaaf dafa dafa nakkiraa léegi ñun ñoo ne nu nga jublu ñun tawaaful xuddóomi ifaalati loolu dafa leer léegi mooy mooy ñoom makka daa bokk ci sarti aj makka nga def tawaaf nga wër kaaba gi di caa bokk boo dugg si ak boo koy boo fi aj booy booy booy ziare si umra wala nga aj ñun nag fii di umrawukaay du ajukaay moo tax duñ bàyyi kenn nga fi wootu loo xam ne nii suñu tuwaa xamu ko diglewu ko